bu ci ne mu jàng ci faatiha benn yoon ak inna ansalnaahu ak qul huwallaahu lu ci ne ñaari yoon des na ko ca bindal tuyaaba ji toll ni limub ko jëkk a gëm yàlla ba ci ko mujj gëm bu fekkee dafa tawatoon dana wér bu amee woon ay bor yàlla dana ko fay bu nekkoon ci njàqare des na wuñ ñi njàqare la te des na ko musal ci sawara asalaamaaleykum mbokk jullit yi ñu ngi leen di ziar di leen nuyu bu baax a baax a baax waaye di ñaan rek képp ku gis vidéo bi nga def fatiha ak fukki lixlaas ak benn ak salaatu ala nabi boo man nga ñaanal wayjur bii nga xamante ne si nii moom moo fi bàyyeeku nga xam ni dafa amoon solo trop nekkoon ku baax ku julite muy El Hadji Mor Seck ñu gën ko xam ci Baye Njóoba yàlla na ko yàlla yërëm te xaare ko aljanna